jërë ngeen jëf mbokk ñu ñuy ñu ngi leen di nuyu di leen siyaar di leen ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yéen di ñaan réew mi Sénégal yàlla na suñu borom daal jàmm di nuyu suñu kilifa diine ak suñu kilifa aada yi euh, tey nag ñu dalal koo xamante ni kenn dootu ko présenté ci réew mi euh, mu di Cheikh Mouhamad Fadal alliance 10 000 problèmes rang wang kang kunkang fas yéene Cheikh moom waxtaan ci wàllu actualité mais rawatina tey nag ci wàllu diine ak charia 10 euh, ñu ngi lay bàyyi nga nuyoo ngi lay suivre. asalaamaaleykum wa rahmatullah asalaamaaleykum maa ngi nuyu ñëpp Sénégal yëpp du nuy jullit yeeg chrétien yëpp di nuyu tamit xool kilifa diine yi di leen masawu coono di leen ñaanal yàlla wér ak gudd fan si barke alxuraanu karim di ñaan yàlla yàlla musal nu seytaane ba comme ni ko alxuraan waxee rek auzu billahi mina seytaani rajim bismillahi rahmaani rahim. am na solo 10 euh, 000 euh, fi may njëkkee muy sànq ci say nuyoo yaa ngi wax ni maa ngi nuyu euh, jullit ñi ak chrétien yi mën nañu xam ci charia ban relation la jullit war am ak catholique wala chrétien. waaw xam nga jàmm rek moo war seen diggante muy jullit muy jullit muy chrétien yàlla moo bind doomu aadama mu ni xalaqa insaan wal jënni illaa la yaabudu ni maa bind doomu aadama jinni lu dul nu jaaw moom te yàlla bi muy wax naan ud'uuni astajib lakum ñaan leen moom may leen waxul catholique bi moo war a ñaan wala jullit bi moo war a ñaan ndax yàlla moo bind doomu aadama yàlla bind doomu aadama yàllaa moom àdduna yàllaa moom àjjana yàllaa moom safara te di nga nekk ndaw am kàttan yaakaar ne yàlla nekk fii fekk na fekk na boo bu yow boo boo defee benn pas sax boo doxee benn paa bu jege sax na nga xam ne yàlla la neex entre chrétien ak ak jullit xanaa jànguñu xool qul yaa ayyuhal kaafiruuna laa abudu maa taxbuduuna wala antum abiduna maa abudu wala ana abidu maa abadtum wala antum abiduna maa abudu lakum diinukum waliya diin yàlla dafa wax lu leer ci alxuraan moo tax kuy dingal alxuraan dafa may jaaxal yàlla mooy atte yàlla moo xam àjjana moo moom safara yow mi jullit bi mënoo critiquer xoola euh, euh, euh, te bi yi mënul critiquer jullit bi yàlla wàcce nañu alxuraan wàcce lu sharia wàcce nu ay alxuraan ay saar yoo xam ne bu ñu ko jàngee dañu xam ne yàlla lii la fi wax quoi. sharia dafa nekk loo xam te ni bindu yàlla la waxu yàlla la. mais diine bi nee na nan topp Muhammad sallallahu alayhi wa sallam mais huwa xaatum nabiyyiina wa imaamul ñun Muhammad mooy suñu yenent yent yàlla Mamadu ñii Isa mooy suñu yenent wax tey boo demee tey Inde tey am na 1500 diine tey boo duggee Inde tey ku nekk li ñuy jaamu ñii ay xar nañu jaamu ñii ay picc ñii ay livre ak ñii ay lu kenn xam ku nekk li ngay jaamu nit ki loo mën a gëm si àdduna yàlla dina la fa fekk. te boo demee Chine xool gis nañu xoolal Bouddha yi ñoo dàq ñaan fii mais du nay jullit yàlla mooy séddale mais nekkul ñun ñoo war a juger kii wala kee loolu lépp muy défendre si yàlla ndax yàlla moom mooy atte yàlla mooy alimul xaybi wa shahadati moom moo xam lépp keneen xamu fi dara. ku nekk nag am nga tuuri xam boo neexee nga toog di nganda ngandul mais yàlla moom moom lépp moom àjjana moom safara bindi niki mais mais ndax limite war na ban ban maanaam ban limite moo war a am seen diggante parce que bu ñu demee bañ ni jullit ah, euh, warul ñaanal chrétien jullit warul dem fii jullit warul dem fële euh, ci wàllu charia euh, si wàllu charia ban si wàllu charia si wàllu charia na ni wax de yee mais ñun sunu sëriñ si suñu sëriñ si ñaata tubaab leen seet si ñaata labbe ñoo leen seet si Hmm, ñaata labbe nañ fi ñaanal baa Ñas Baay dem na si labbe yi dem Niger mu tuubloo nigériens yu bare ñu nekk la nekk si taalibe sa xool xaaju Sénégal loolu xaw grâce à Mawlana Cheikh exemple te ñooñu lu doon def moo gënoon moo gënoon garaw mais dañ leen tuub jullit kenn du ko daw yéeféer kenn du ko daw ku bon ku dëng sax xool kenn du ko daw ndax si jàngale Muhammadan boobu wax noonu nekk quoi boo toppee si téere bi rek boo demee si téere alxuraan bi nga jaar si sunna su Muhammad sallallahu alayhi wasallam di nga xam ne lii moo la war quoi. mais nekk da nga naan catholique bi doo ko ñaanal yow yaa moom yow yow sa ñaan la yàlla nangu wala ñaanu waa kan la yàlla nangu mais ñaari sëriñ fa nekk am ay xaritu ay chrétien ñu dem si ay chrétien. Touba mu ngi ni keroog paase màggal gi paase wala ñun jàmm rek lañu seq ak ñoom. màggal bi paase ba xoolal am na église bi xool ba Baye Fall xool lan ko àll. Baay Faal di fa cant kon donc affaire bi nekkatul du foofu ay kii waru ñaanal catholique bi kii kenn waru ko ñaanal yàlla moo yor kàddoom aalimul xaybi wa shahaadati wa huwa rahmaanu rahim nan delloo seen xel si yàlla ñu nekk ay nit dañuy jaawale boroom xam-xam ak féticheur moo tax ah, ah, moo tax alxuraan naan leen yu allama naasu sixra dañuy jàngal nañ xërëm xërëm ak xam-xam ba tey bokkul jànkatu alxuraan yi ak ñii bokkul te wóolu yàlla xam nga lu mu tekk mooy ku am sañ-sañ si yàlla comme ay Cheikh Ahmadou Bamba Mawlana Cheikh al Islam ay Baye Niass Baye Laay ñoo ñu ñooñu spécial la ñu ay wóolu yàlla loonu ñoo dana am cër si yàlla bokk noog ñun bokk noog ñoom diine moom lu si waay wax na nga teey bind bi moom nu mu koy bindee boo ko mënee firi nga firi boo mënu firi nga noppi nga xool ku la ko firi mu firi la ko d'accord am na solo mënuñ ci war bañ a ñëw nag parce que waag waag ku ko xam-xam ne euh, borom xam-xam la vraiment borom xam-xam la te it am na lu ko yàlla dénk ci xam-xam euh, waag fan yi ñu seetlu ay coow yoo xamante ni am na euh, mu jógee ci kii di Cheikh Ahmed Cissé te yëkkati ay kàddu jëmale ko ci sunu borom donte jéggalu na ko ci sa kanam sénégalais yi mais ñu bari dañu tura ñaawlu kàddu yooyu noonu bi nga dégloo kàddu yooyu noonu xam nga Ahmed Cissé man dama ko yërëm Ahmed te nit la koo xam ne chaque fois mu def ñombe benn dam lay limal wa trois affaires yoo xam ne wa def na ko si at mi. Ahmed Cissé dem na fi te géejawaay si benn jàkk juma julli aji moo pare mu taxaw war a xutba mu taxaw naan il faut ñu jël xool protège ñu séddale ko il faut ñu séddale kàppoori boog maanaam war nañ wax si jàkk mu jógee fa demaat Kaolack di diingat waaw benn mu xadda mu Baay Ñas waa mais taalibe yi ñoo ko jàpp yóbbu ko dóor ko dóor yu metti doyatul la mu jógaat fu ñëwaat naan yàlla day comédie yàlla day zoose yàlla day théâtre am ne alxuraan li sipp xool amul mais loolu waxu lan la est-ce que gis nañu kaamil alxuraan est-ce que gis nañu ñu doon toroxal alxuraan bi ñoom fu nu mujjee wa tey la cas de bi tey rek doy na leçon wata tremblement de terre jombunu ñun wata Maroc ña fa dee ñun wata gënuñu leen mais loolu la ñuy wax martaba mooy balan yàlla su meree buy mbugal man day wër day mbugalale ñëpp moo tax yenn jëf yi nañ koy moytu ñu ngi si axru zaman nag ma maanaam mujj jamono wala àdduna bi jeex na pare nan ngay xëy adduna bi di tukki waa fii di def nii yàlla armée am la yor armée nationale te xamoo ne yàlla moo njëkk miin àdduna bi sa lataa sax gaa yi di defar ay bomb ak nii am na ñaata yoo ñoo faree ay nit. Hmm. yooyu naaw rek mais gis nañ fi Namruud bi mu duggee si bopp yi mu naan ay Namruud xatu gunóor moo ko rey. noonu xam ne kattanu yàlla xajul si doomu aadama li gën a ndaw xaju si. Hmm. asamaan si mu ngi ñu tiim mu ngi dox si kaw suuf yàlla bu ko ne day xëy ko dëpp suuf si te def na ko fi ba sonn. ay jamono ñaata yente wàcc yàlla tukkal àdduna boobu. kaddu yooyu nga xam ne daawuñ ko seetlu ci sunu dëkk bu ñu demee ba léegi dëkk bi kàddu yooyu noonu tamit ku jug rek wax attaqué sëriñ si wala ah, ju léegi dem nañ ba dañuy dem directement ci sunu borom. kaddu yooyu noonu nga xam ne daawuñ ko seetlu ci sunu dëkk. waa parce que ñenn ngi dañ leen yónni ñenn ngi dañ bokk si benn lobby ñu leen di jox xaalis ñii dañ leen di fay pour ñuy saaga ay nit. gars yi dañuy géem maanaam dañuy business business boo xam te amul yàlla amul yeneen te mbiru àdduna laam ak ak wut xaalis ñoom seen liggéey loolu la ñoom xoolal moo ñooñu ñoo nekk sax si yenn série yi ñoom xooluñu tey dañuy gis benn gaañ di ko jëloo benn série ba mu éloo ko xoolal mu xam moom ban doon lay jouer mais xoolal cachet bi lay xool rek bu dem jouer wi te li muy jouer gis naa si ñoo xam ñu ngi jouer série si biir jàkk di def lu ñaaw ñu nekk si jàkk di def lu ñaaw di wax lu leen neex te pourtant da leen fay mu ne ko pour ñu saagay kilifa. Mhm. ñaata ponk la nekk Europe lu leen neex wax sëriñ si. Mhm. ñu ngi kaaw lu leen neex wax sëriñ si. Mhm. lu leen neex wax suñu kilifa diine yi léegi dem noonu sax ba kilifa diine sax dañoo rus ñoom bëggatuñu sax wax moo tax lu am noppi. ndax suñu waxee benn kilifa su waxee léegi léegi nga gis ay doomeraam yu ko attaqué naan sëñ bi nii di wax lu leen neex wax. kaddu yi Ahmed Cissé yëkkati. loolu dañ koy ñaawlu quoi. ñaawlu na ko trop. ñaawlu na ko ñaawlu na ko quoi. waaw yoon nag dina def lu mu war a def ko waaw ñun li ñu war a wax si Ahmed Cissé wax nañ ko quoi ñun li ñu mën mooy lancer message bi pour Sénégalais yi xam quoi. moom mu nekk nit. donc dafa juum mu xam ni lii tamit na tuub yàlla moom jëgal. ni ko waa ji waxee rek ñun baal nañ ko mais yàlla moo koy jëgal te dégg naa muy wax muy wax muy wax sawaay lu ñaaw encore. Mhm, waaw yi circulé démb. muy wax kii lu ñaaw. maam Maxtaar maam Maxtaar bu jëm rek mu koy wax lu ñaaw. mu war na rus loolu sax maa Maxtaar bu jam rek wala kilifa la te maam Maxtaar lu baax rek lay dox. maa Maxtaar tey bu demee ba convoqué nit te yóbbu ko kaso loolu pour ndimbalu waajooju la. Mhm. ndax moom bu demul kaso bu ñu ko bàyyee fii gars yi dañ koy sonal. Mhm. xam nga dañ yi dañuy yaakaar ne kaso pour sànqal la mais kaso pour dimbale nit ki la. am na fooy toll si temps bi nit ñi dañ lay wër bu la jàppee dañ lay rey dañ lay jàpp yóbbu la kaso nga tëdd. ñaata nit def def xool kirim ñu yóbbu kaso seen jeex ñaata nit ñoo tëdd si kaso bi te danoo rey nit. pourtant ñooñu ko bu leen jàpp woon ko dañ leen rey te bu nu dayoo ñu rey seen papa wala seen yaay mbaa seen mag mbaa ko jege si ñoom moo tax état dafa am solo dëkk bi dafa am yoon nekk lu la neex ngay ubbi sa làmmiñ maam maxtaar bu jam rek boo ko mënul jox cër nga bàyyi ko ak li muy def ñun bëggu nañ ko gëm nañ ko respecté nañ ko dégg naa ay waxam nag ay kàddoo muy wax maam maxtaar bu jam lu ñaaw ma moom moo dem ci maam maxtaar jébbalu ko jéggalu foofu mu may jox ko carte mais génn na nag jam rek génn nañ ko na nekk ci boppam d'accord mais foofu tamit ndax jàppoon ni du du du fëtu waa Jamra parce que Jamra bu ñu koy wax mu nekk ONG boo xamante ni ci luy defar lay def waaye tamit ñu gën koo ràññee ci wàllu diine. Euh, Jamra bu ñu demee ba ku jug rek dem ñu jox la carte feccikat bi lii ak lii ak lii ndax jàppoon ni gars yi tamit dañu xaw a làqatu ci Jamra pour mën a yëkkati yenn kàddu yi. waaw man loolu Moussa wax ma wax ma Motar quoi. Mame Matar Jamra nekkul même porte kii de nga jox carte. Mhm. moom laaj ko boo naa ko am na ñoo xam ne bu leen jox sa carte. Mhm. nan dem def li ñuy def. Jamra association la boo xam te ne c'est pour les musulmans ñun lay dimbale ñun baadoole yi moo tax ma maxtaay si Jamra tey te ba am problème boo ko woowoon léegi moom mën na la taxaw si loolu état nangul na ko état recevoir na ko état mu ngi koy dégg kilifa la moom nag lu ko neex na wax mu ngi làmmiñ mu ngi wax rek wax bu ñaaw si maam Maxtaar naan ay lii la ak ay lee mais tontom mu ngi koy xaar eh, faqata illa mm-hmm. Euh, euh, mais tamit jàppoon ni tamit Jamra Jamra lii nii war na ci jëlee leçon ba bu ëllëgee nit ku ñëwaat aussi tamit waaw ñu xam ci ci yan condition lañ koy teg waaw surtout surtout waa war na si jël leçon nag quoi mu xam ni nekkul ku ñëw rek nu jox carte ma kii euh, membre bu Jamra ñu ngi siyaara baax jërëjëf nekkul wax naa ko Mame Makhtar li ngay wax nii woo naa ko téléphone ni que Mame ku ñëw rek nga jox ko il faut ngay tànn say élément tànn ñoo xam ne ay nit nañu dëggu nañu doylu nañu ko mais ñenn ñi bës nañ si wër ay bokk naa fi ndax ñoom chaque un mois wala chaque deux mois ñu kere benn bruit quoi. da nga jàpp ne dañuy ginnaaw Jamra pour mën a def lu leen neex. noo bari na ñuy làqatu si gannaawam bu ko salteel léegi léegi la sax bi ñenn gaa yi duggee si maap bi gaa yi duggee Jamra sax la loolu am mais Jamra daaw ko dégg sax loolu ay jàppale na kii jàppale na kee taxaw na kii dem na fële. nit ngi ñax sa noonu jooyat noonu mu def wat plainte am am état arrêté ko mais néeg lii nag lii Jamra war na si jël leçon ba du nekk xool golo gu ñëw rek nu jox la carte foo nu jël suñu responsabilité ba pare ñeneen ñu segg leen nekk nu ay ñun kerew nu Jamra pour ay théâtre rek ay lépp ay bës da ko keree pour jaamu si yàlla ndax wa maa umiru illaa liya'budullah loolu moo tax ñu keree ka ñu gis ni aussi tamit ci ay kàddu Ahmed mu ngi wax ni man kenn mënu lu ma dara. dégg naa ko ah, waaw waaw. dégg naa ko tamit yooyu yëpp waxoo la. Mm. loolu lépp waxu maire la ndax ñu waxante dëgg quoi fii sëriñ si fi nekk di wax lu leen neex dafa bari Sénégal. surtout man dégg naa benn sëriñ sax bu taxaw ni wata yeneen bi de si gannaaw sëriñ boobu la topp xam nga doo bëgg sëriñ doo nekk taalibe ba sa sëriñ takk si kaw Muhammad amul. jàkk ji boo noddoo looy dégg allahu akbar allahu akbar ashhadu an la ilaha illallah ashhadu anna muhammad rasulullah ay yàlla salaa ay yàlla falaa qad qaamata salaatu allahu akbar allahu akbar loo si teg après la ilaha illallah loo si teg muhammad rasulullah salaa sallam iblis li tax mu am li mu am dafa gis yàlla fu mu bind turam rek yàlla fu mu bind turam yàlla fu mu bind laa ilaha illallah mu teg fa muhammad rasulullah salaa sallam ba mais iblis xool loola topp waaw mu ni kii de nga xam ne ni waa ji su bindee turam rek teg fa waa ji waa ji man foo ma xam ko. ba ci la bind Muhammad laax ko fu ñuy wax alimul awraax nëbb ko wàcc aadama moo tax ñu naan rabbi wa aadama benn la maa ngi wuti ndekete instant boobu Muhammad moo doon sukk noonu. mais yàlla ormal bi mu ormal Muhammad moo tax xool Muhammad xool kenn du ko toroxal wàcce ko aadama yàlla ni Iblis sugalul aadama lu nekk ana laa sugatulu aadama. am hada xalaq min a wa ana xalaq min nar mi ana laa sugatulu aadama ñuy wàcce. nga xam ne alxuraan wàcc extra nga xam di wàcc na fu nekk nga Abu Lahab na la ay wàcce si moom alam tare kayfa fa'ala rabbuka bi ashaabil fiin la wax de alam yaj'al kaydahum fi tadlil wa arsala alayhim tayran abaabiila tarmiihim bi hijaaratin min sijjiil fa ja'alahum ka'asfin ma'kuul pourtant ñooñu doon dee doon doon dem naan dañu toje kaaba gi waa kër famille Abraha moom ah? pourtant ay piqué ñoo leen sonal la ay piqué ray ña fa nekk ay picc nekkul ay nit de. tarmihim hmm. loox bi xijaarati min sijilin fa jaalum kaas fi maakun gaa ji deen ay weñ. nga xam ni kàttanu yàlla. weesu na foofu weesu na foofu quoi. lan moo ci taxawaayu état coow lii. waa état daal waa coow li mooy mu jël euh, ñu am fulla hmm. ñu xam ne ñun ñun état nañ dëng suñu bopp. état nañ dénk réew mi état nañ dénk suñu bakkan ñun nekkoon beneen dëkk ñun Sénégal na nekk ñun Sénégal na nii mën a maîtriser ñun beneen dëkk lijjantuñ ko ay dëkk bi lii lay def ak Afrique dëkk yëpp ngi si ay problème sauf Sénégal mais ñun duñu sant yàlla dañu war a sant Baye Fall dañu war a sant Afrique yëpp ngi si ay problème ñëpp mais ñii ay kuréetaan nañ def ñun ñaananu yàlla doon ñun toppandoon loolu. fii da ngay toog sa mandat jeex nga wàcc. ba keneen falu. nit yàlla leen yor wata sénégalais yi ñàkk nu fayda am nañu fulla. wata sénégalais yi xool xiifuñu wata duñu cogg kenn te toppandoowuñu kenn. nanu xam ne ñun ñoo bokk ndey ñoo bokk bàyyi. alaaji Maalik sëñ Tuubaa ñoo bokk bàyyi ñe say sañ fallu ñoo doon ànd. laay ak keneen ñoom ñoo doon ñoom c'est la famille. si ko tarbiya si ko jébbalu respecté ko respecté waale sëriñu jàmbur. Uh-huh. fii sëriñu jàmbur boo fi saaga mu saaga sa sëriñ. saaga ndeyu ba saaga sa papa ak sa yaay. d'accord foofu noonu laay ñëw fan yi gis nañ coow li nga xamante ni am na ci kii di ku la xam-xam ni vraiment ah soldaaru oh Cheikh Modou Karanga fan yi coow li nga xamante ni am na yenn xale yi di ko challenge euh, bi nga jàngatee loolu. non man affaire yi wax naa sax waxaat si mais après man ay waa ay ree ma def quoi. Uh-huh. parce que ndeysaan ñoom alxuraan da yéem xam nga ñenn ngi xam lu seen problème. yow da ngay wax di jàllale di lancer nit ki day juum. nit mën a juum ndax yàlla rek moo di juum. mais ñii dañ lay déglu pour critiquer la ñii dañ lay déglu pour xool lu ñu wax. Abba Jada loolu alxuraan la alif xam nga alif dafa alxuraan maanaam dafa am jàng ale jàng retour ba muy ijji rek ijji. waaw mais Idji rek man jàng naa ko presque quatre ans Idji la temps may fer Idji ndax Idji boo ko mënee Idji boo ko feree danga mën a xool bind sa bopp di nga mën a liir mais léegi ngay gis Sénégal léegi ngay gis Sénégal xool nu ko jàng ba yam ci wa sama isaatil burudi billaahi wallaahi boo ko joxee téeréem ni ko génne wa sama isaatil burudi du ko génne ni ko jàng ba am yata ba suróotu am wallaahi azim boo ko nee bindal ma am du ko bind gumba kon lan nga tax lan nga jàpp ni moo tax xale yi di di di di di di di di mbalak kii di Cheikh Kara. waaw parce que ni ko déggee ay bun loolu ay yoo xam ne ni faam lu naan tey su ma bu mag mun naa mun naa jàngale si iju boobu ma gën ko wane foofu quoi. waaw parce que alxuraan ñëpp xam ne alif la commencé ba ta sa. jim xa xa dal zal ra zay shin shin sab dad taay raay ayin rin fa xuuf xaaf laam miim nuun halkebeer waaw yaay léegi foofu waaw loolu noo vingt-huit lettres yooyu mais lettre bu nekk lettre bu nekk xoolal bu buñ ko maasee ni nga ko war a maasee xam maas yëpp changé boo bindee benn ba. mën mën na nekk leneen ak leneen. Mm-hmm. leneen nga bind yaay mu bind mu si marché mu di leneen léegi nag loolu nag boo ko xamul parce que ñenn ñi dañuy ñëw rek burle fi gis naa ñu bari danoo ñëw rek jàng xool ñu bind leen bismillah rahmaan rahim ak ay ak ay damay nga dégg booy ndew naan rab ñëpp daara rabbana aatina fi dunya def ko way te pourtant daara vraiment naa boo duggee daara li nga war a dégg da ngay dugg léegi benn daar ñëpp yam li ni jàng mhm. boo duggee daara alxuraan mi kii mi ngi jàng isa jaa rasulullah mi kii amana rasul mi kii isa zlzal mi kii alif bata sa kii jaa xaaxa del kii mi ngi jàngale ñëpp da ngay dégg alxuraan bi mais fii ngay gis nga dugg si benn daara mu mel ne benn genre wata franco arab d' accord ndax lii nii du ragal yenn kilifa yi aussi tamit ndax léegi daanaka yaa ngi koy wax kilifa yi ñemetuñ kilifa yi dañuy ragal mais nu ñuy waxee dañuy wax benn boobu ndox ma leen tontu ndax seen internet nañu yor bal dañ leen di fay fam ñoom dañ leen fay pour ñuy def lii wala di saag wala di fay la am na ñoo xam dañ leen fay xool pour ñu saaga Macky Sall am na ñoo leen fay pour ñu def lii Baye Fall li fi am na ko def quoi ñun géemuñu loolu man ku yaakaar nga may fay pour ma saagal diw sax yow da ngay sonn sa bopp mais du ma ko def d'accord am na solo ah mu ngi noonu moom laa daraloon fii mu di Cheikh Mouhamadane Fadal du ñàkk message boo xam ne aussi di nga ko lancé waale euh, jeunesse ñi euh, rawatina ndaw yi aussi tamit Cheikh Modou Kara moom dama koy ziar bu baax di ko nuyu di nuyu di nuyu ko sëñ ma man taalibe Baay laa taalibe Baay Ñas laa mais dama bëgg sëriñ Touba dama bëgg El Hadj dama bëgg Serigne Babacar ndax ñoom seen téere dama koy jàng tey boo demee tey si wajaf si jawatu Kamal jawatu Kamal mu ngi naan la ay ni xaq yi la ciy tatajalla minha urusul xaqa ay ni maarif xaqan jawatul Kamal laa wax de mi nga xam ne ni moom la tiijaan yi di di durus. nga dem si téere sëriñ Tuubaa bu naan alif laam miim innama sawiru wala tujadilullah min kulli karimin akramu wa man amu qadallahu takaramu aslimu lahu kalli al imani wala zi al ahsani arrahmani wajjiha bi shukri bila kufrani tuk fi xisaabuhu maaniraani xool Cheikh Modou Kara ko sikar na ko mm-hmm. ñun lu ñuy way di ko noos nii pourquoi mënuñu jël sunu culture wala suñu lunu moom suñu alxuraan ñu xool nu si jàllalee message pour yéen a ngi jàngal si ni ñi jaajëfa tey nooree mm-hmm. waaw. Mhm. baax na mu ngi noonu moom laa dalaloon fii tey nag waxtaan bi nag xam naa xaw na xaw na xaw na xaw na jaaxal gars yi parce que comme xaw a bi nag xam naa dinañ ni par rapport ak 10 000 problème yi ñu xamoon saaga yi fii wax ji fii tàngal bi fii tey nag dañ ko tëkk ci diine ak charia parce que semaine bi actualité bi fi am yëpp wallaahi man képp ku ma ak charia la képp ku ma daggal rek képp ku ma saaga rek yaa def li ma la saaga d'accord waaw d'accord mais am na waxtaan bu su nekkee